wajalilaayi maskani Tuuba baat misras mi abijaayi xayri ma nabaat wajalilaayi maskani Tuuba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 foo fekkee nit buy defar dëkkam comme on dit da nga koy jàppale. Mhm.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 misras mi abi jaay